mbokki baaxoo di teewlu xibaaru bambuk dal leen a jàmm ci seen tënkum xabaaru euh, bés bi euh, numéro 2 wu euh, Pastef di Birame Souleye Diop jiite tamit groupe parlementaire coalition Yewwi Askan Wi moom nag dañ ko daldi toppee lu toll ci ñetti chef d'accusation yoo xam ne jàpp nañ ne daal dinay rëy lool ci loolu nag ñu mën cee lim offense au chef de l'État diffamation contre un chef d'État étranger ak li nga xam ne mooy euh, étranger de nature à s'appeler relation diplomatique ak discrédit sur une institution yooyu nag mu ngi am gannaaw ba nga xamee ne euh, yeewi askan wi daal doon nay amal ab conférence de presse mu yëkkati ci ay kàddu yoo xam ne jàpp nañ ne dafa ëpp ba tax na ñu daal di koy toppee ñett euh, chef d'accusation yooyu naam sax génnoon na daal di baalu waaye terewul daal doon nañ koy convoqué fële ca sûreté urbaine ba daal di koy euh, mettre sous euh, en garde à vue loolu nag euh, tax na ñu mën a njot rek ne ki nga xam ne mooy président groupe parlementaire Yewwi Askan Wi li koy xaar mën na doy waar lool gannaaw ba nga xamee ne kàddu yi mu yëkkati yooyu teg ko ci ndoddal ki nga xam ne mooy njiit réew mi président Macky Sall ak ki nga xam ne mooy homologam nekk président wu Côte d'Ivoire di Alassane Dramane Ouattara comme ni ma ko waxee léegi nag jamono ji nag moom ñu ngi ko placé en garde à vue le cadre unitaire de l'islam bokk na ci ñi nga xam ne tamit yëkkati nañ seen kàddu di félicité njiitu réew mi président Macky Sall ci décision historique bi nga xam ne daal dina koy jël bañ a bokk ci jongante yi nga xam ne nar na am niki euh, février 2024 ñoom nag daal dinañ jàpp ne euh, choix bu am solo bu baax la te njiitu réew mi di président Macky Sall lim daf di dinañ koy euh, rafetlu euh, bu baax a baax euh, gannaaw loolu tamit ñoom ñi nga xam ne ñooy waa kiddis daal dinañ xam le ne moment bi nga xam ne daal dinay jël décision bi moment bu am solo la tax na dina tax dëkk bi daal di ànd ak dal ñu bëri pexe yi nga xam ne naloon nañ ko pour que bu fekkee ne day posé ñu daal di koy amal gis nañ ne loolu yëpp dara amu ci te loolu jàmmi Sénégal moo ci am ndam gannaaw loolu tamit daal dinañ sàkku ci président Macky Sall mu wëy di fexe ba décision bi nga xam ne jël nañ ko mu wëy di am stabilité ci biir mi mu bañ a defaat leneen loo xam ne rek dina daal di yàq euh, choix bu am solo bi nga xam ne àdduna bi yëpp daal nañ koy euh, rafetlu. deux semaines gannaaw ba nga xamee ne sàkku nañ ci ñoom ñu daal di euh, jóge fële ca Mali muy mission multidimensionnelle intégrée des nations. Unis pour la stabilisation du Mali du MINUSMA gannaaw ba nga xamee ne gouvernement malien daal dinay sàkku si ñoom ñu daal di jógee ci réew ma ki nga xam ne nag mooy conseil national de sécurité de l'ONU daal dinay daal dinay mettre en terme ci euh, décision boobu nga xam ne waa Mali jëloon nañ ko ni ki 30 juin ba tax na euh, jamono ji ñoom waa MINUSMA lu toll ci deux semaines lañ leen may ngir ko ñu daal di six mois lañ leen may ngir ko ñu daal di defaraat seen bagage mën a jóge foofu ca dëkk boobu di Mali ci loolu nag ab officier sénégalais bi nga xam ne bokk na ci euh, contingent yooyu daal dinay def ab vidéo di xam ne ci condition yu métti yi nga xam ne daal dinañ leen ko teg ngir mën leen a génnee foofu de euh, Mali euh, gannaaw loolu ñaatu ci tàggat yaram ak komba bi nga xam ne daal nañ koy fësal te ko amal mooy Albourakh Evans mu war a am ci diggante Eumeu seen ak Tapha muy choc bu am solo boo xam ne amateur làmb yi ñu ngi koy xaar bu baax a baax te loolu nag mu ngi war a am niki ci mois de novembre bu fekkee dara xewul loolu nag tax na ñu mën a njort rek na combat bu nar a am solo la ndax ki nga xam ne mooy Tapha nekk écurie Bawol mbooloo moom lim nam mooy fexe dem jëli roi des arènes bi te ki nga xam ne mooy Eumeu seen nekk écurie nga moom daal doon na koy doon waaye li muy jéem a mooy maintenir rythme am ci làmb ji ngir daal di woy di mën a am ay combat